alhamdulilahi ala ixsaani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinaani wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu taadiman li shaani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu daaci ila ridwaani fa salawaatu allahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa saxbihi wa ixwaani ginnaaw loolu mbokki jullit yi ñi ngi fàttali suñu bopp di leen fàttali ne texeg jaam bi ak muccam ci àdduna ak alaxira mi ngi nekk ci njubam tënku ci yoonu borom bi subhaanahu wa taala ci loolu rek la nit di mën a amee texey àdduna ak alaxira mooy tënku ci njubu yàlla tënku ci siratullahi almustaqim loolu rek ci la jàmmi nit jàmmi àdduna ak jàmmi alaxiram nekk te loolu mi ngi tàmbalee ci njubug xolu nit ki ci boppam njub nekk ci xolu nit ki xol boobu nangoo tënku ci bëgg-bëgg yàlla subhaanahu wa taala bu fekkee xolu nit ki tënku na ci njub ci loolu la ay cëram di mën a jóge tënku ci njub loolu di jëf lu jëm ci njub ndax xoolkat li yonent bi alayhi salaatu salaam xamle woon mooy saa bu yëwanee nit ki ay cëram dafay yëwan waaye bu yàqoo cër yi dafay yàqu yàqu xol gi mooy yàqu la nekk ci biir xol bi muy contenu bi di madmun bi baaxu xol gi tamit lim ci namm mooy baaxu la nekk ci biir xol bi loolu ci la jëfi nit ki di tegu ndax xol ci cër cëri doomu aadama dafa mel ne comme buur moom moo leen di commandé moo leen di defloo ñu def moo leen di bàyyiloo ñu bàyyi loolu borom bi subhaanahu wa taala junj na ko ci ayatul baqara bi mu waxee ne ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo jamonoog yonante bi alayhi salaatu wasalaam te weddi ko dañ koy defiyee di sàkku ci moom mu indi leen ay firnde yu jóge ci yàlla lu ne ñu sàkku ko ci moom ngir rek lànk bañ a gëm njub li mu indi yàlla ne lii ñuy wax ak a def day te teguwul ci xam ñi leen jiitu woon def nañ ko li ko waral mooy seeni xol dafa nuroo yàlla subhaanahu wa taala xam le ne kon ndakate nit ki defam ak waxam loo xam ne dëppoowul méngoowul ak xam-xam la ko ci yóbbu mooy xol bi moom moo dul jub bu xolu nit ki jéngee jubul ay cëram ci ndëngate rek ak ci lu safaanoog njub ci loolu lay dem loolu kon di feeñal importance ak am solo bi nga xam ne pas-pas bi nit kiy fas ci xolam am na ko ndax mooy liy jeexital ci ay jubluwaayam ay bëgg-bëggam kër-këram yépp mën nga ko delloo ci li nga xam ne moo fasu ci xolam ndax li muy bëgg ka bañ ci loolu lay sukkandiku di ko bëgg wala mu koy bañ kon loolu di feeñal importance su aqida muy pas-pasu nit ndax mooy fondement wu diineem ci lay tabax diineem ba tax na bu fekkente ni nit ki jàdd na yoon wu jub bi mu war a soo tegu ci pas-pasam réeram ak ndëngteem dafa nekk ci pas-pasam lu bari la koy indil lu bari la koy sababal ci ay yàqute yoo xam dina feeñ ci diineem feeñ ci àddunaam boo ko dee jàngat borom bi subhaanahu taala waxoon na ni ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla ngëm yàlla gu mucc ayib ngëm yàlla gu wér seen ngëm yàlla jaxasuñ ci bokkaale walam yalbisu imaanahum bi zulm jaxasuñu ci seen ngëm yàlla jaxasuñu ci seen pas-pas bokkaaleeg yàlla lépp lu ko xeetoo rek wala lu ko jege dañ caa mucc yàlla nee na ñooñu ñoo nekk ci lu wóor ñoo ne war a nekk ci kóolute ñoo war am confiance ñoo war a am dal waaye mën a tamit ñoom ñooy ñu jub nga gis ne ci aaya boobu ñu yàlla di saxalal al istiqaama wal hidaaya muy njub mooy ñi nga xam ne seen yi pas-pas dafa mucc ci bokkaale kon bu problème amee ci pas-pas nit ki mun ta am istiqaama mënta am njub ndax dafay affecté leneen li muy def lépp ci ay jëfam kon xol mënta jub wala mu yëwan li fekk setul muccul ci xeeti taq-taq yooyu tilim tilim yooyu nga xam ne dafa jóge ci bokkaale bu fekkee feebari bokkaale dafa nekk ci xol bi affecté ko xol boobu njub du ca mën a nekk te loola ndëng googu nekk ak feebar boobu nekk ci xol bi dafay jeexital ci cëri nit ki yépp loolu kon di wane ne nit ki ngir mu mën a am njub faw mu yittewoo am pas-pas boo xam ne bu mucc ayib la bu mucc ci bokkaale la ak lépp lu xeetoog bokkaale lu nit ki di gën dëgër ci taxawaayam bi mu taxaw ci tawxid muy weetal yàlla subhaanahu wa taala jagleel yàlla ay àqam àq yooyu nga bañ koo jël di ko jagleel leneen ci mbindee fi yàlla yi subhaanahu wa taala lu nit ki gën a dëgëral taxawaayam ci loolu diineem di gën a mucc ayib waaye lu loolu di gën a gàllankooru diineem di gën a gàllankooru te loolu ngir nit ki mën koo taxawee def ko dafay nekk ne màggaayu yàlla day nekk ci xolam nit ki bu yàlla màggee ci xolam mbindeef day ñëw ci bëtam loolu mooy tax du jël àqu borom bi subhaanahu wa di ko jagleel mbindeef ndax bu fàttali ko màggaayu yàlla lépp luy àq yàlla dina ko jomba jël di ko jëmale ci mbindeef waaye bu fekkee màggaayu yàlla boobu dafa néew doole ci xolu jaam bi loolu mooy waral mbindeef di màgg ci xolu nit ba nit ki di ko sax jaawaleeg yàlla di ko nattaableeg yàlla wala muy jël loo xam ni place yàlla la di fa jéem a teg koo xam ne mbindeef la kon li nga xamante ni mooy wéetal yàlla subhaanahu wa taala mooy fondement wu diine jël lépp loo xam ni àq yàlla la subhaanahu wa taala jagleel ko ko soril ko mbindeef loolu mooy fondement wu diine te itam képp kuy jub ci lislaam loolu mooy doon sa sukkandikukaay maanaam mooy doon sa point de départ ci loolu ngay sukkandiku foofu la sa diine di tàmbalee jub foofu la sa diine di tàmbalee yowoon kon boo amee foofu problème dès le début ci tàmbale bi li ci des lépp dafay yàqu li ci des lépp dafay gàllankooru bu ñu seetloo bu nit ki amee problème ci pas-pas pas-pas bi mu gëm ni mu jàppee diineem ni mu gëmee yàlla muccul ayib li muy jur ci ay yàqute ci diine yi nit ki ak ci àddunaam kenn xamul nu mu toll yàqute yi muy jur mu ne su ko lim lépp waaye mën nañ cee tudd lenn ngir rek bàyyiloo ci xel ak ngir gën a xam yàqute yi nga xam ni pas-pas bu muccul ayib da koy jural nit ki ngir ñu gën koo ragal gën koo moytandiku ndax kenn du wóolu sa bopp ci sànkute walla ci réer bokk na ci yi nga xam ne dina ko jural nit ki bu fekkee pas-pasam dafa nekk lu am ay problème bokk na ci yi mu koy jural mooy gaaw a mën a tàbbi ci bokkaale bu pas-pas nit ki sellul setul gaaw a mën a def bokkaale day am ci kooku maanaam da koy yomb trop nit ki mu tàbbi ci bokkaale moo tax li cëpp boo seetloo ay mbir yoo xam ne nit ñi dañ koy def te mu xeetoo bokkaale mbir la moo xam ne boo delloo ci islaam nga dellu ci njàngaleem yonent bi alayhi sa wasallam da ngay fekk ñu ne jëf sàngam ku ko def bokkaale la jëf sàngam ku ko gëm bokkaale la nga fekk nit ñi mu yomb ci ñoom loolu ñu koy def dellool cause bi dellool li jur loolu ci ñoom ci seen pas-pas yu yàqu ndax léeg-léeg déggin yi ak gis-gis yi bu fekkee yàqu na mooy jur yàqute googu di feeñ ci jëf yi ba tax nit ñi di tàbb ci ay bokkaale te duñ jàpp ne sax li ñuy def bokkaale la pour ñoom loolu daf leen di jegale seen borom subhaanahu wa taala moo tax yàlla waxoon ne wa maa yuminu aksaruhum billahi illa wa hum mu ne lu bari ci nit ñi dañuy gëm yàlla waaye bu ñu gëmee yàlla nga fekk leen ñuy bokkaale ak yàlla subhaanahu wa taala moo ne ci cosaan fil asl gëm nañ amuk yàlla gëm nañ ne yàlla mooy buur yàlla mooy ki moom yàlla mooy kiy rey mooy kiy dekkal mooy ci li aju ci ko yëfa yu njëkk yi daan waxee leen ci laaj ci loolu comme ko Ibn Abbas waxee dañ naan la loolu de yàlla rek moo koy def waaye ànd ak loolu dañuy jël àq yàlla di ko jagleel mbindeef mu bokkaat ci itam ba léegi yi nga xam ne daf koy jur ci ay yàqute néew lool topp gi nit ki di topp yonente bi alayhi salatu wasalam nit ki néewle ko lool sàgganee ko néewal ci lool ci roy yonente bi alayhi salatu wasalam diine woo njàngalem yonente bi alayhi salatu wasalam ak doyloo ko wala sax nit ki loolu du ko yitteel du nekk mbiram boo seetloo nit ki bu pas-pasam wérul pour mu am njub am istiqaama bu ko may mu tënku ci sunna yi yonente bi alayhi salatu wasallam dafay jafe lool ndax problème bi dëgg-dëgg mooy loolu nekk ci pas-pas bi ci yàqute dafa dul compatible du dëppoo du méngoo ak sunna yi yonente bi alayhi salatu bu fekkee problème yooyu defaruñu ko ba tax na tënku ci njàngaleem yonente bi alayhi di jafe koo xam ne sa pas-pas dafa am problème day jafe trop léeg-léeg ni ngay war a nangoo ay njàngaleem ak ay waxam daf lay indil problème daf lay causer problème day dis ci yow moo tax bu njëkkoon borom xam-xam yi bi ñu fi nekkee as salafu saalix ay nit daan ñëw di indi yeneen xalaatin yu wuteeg njàngalam yonente bi alayhi salatu wasalam bokk na ci liñ leen daan xàmmee ñàkk a wormaal xadis ñàkk a jox yitte xadisu yonente bi alayhi salatu wasalam ba benn bis sax kenn ci ñoom dafa toog ayuba sixtayaani ci ci bërëb ñu fay wax naan yonente bi alayhi salatu wasalam nee na kenn kuy nettali di wax naan diw nettali na ma diw nettali na ko nee na yonente bi nee na bi mu di wax rek am ko ko dog ne ko bàyyi leen seen yi ngeen ñuy nettali wax leen ñu leneen ayub daal di jug di fëgg yére yi naan ki wax lii day gaw ma ne ab jullit la ki wax lii gaw ma ne jullit la mulxidun mulxidun mulxid di fëgg yére yi loolu kon bokkoon na ci li ñu leen di xàmmee ba tax na néewal ci tënku ci njubu yonente bi alayhi salatu wasallam pas-pas bu yàqu daf koy def te ñaari ñaari cëslaay yooyu jàll ñaari point yooyu jàll ñooy fondement wu l'islam wéetal yàlla ci màggaayam ci ay àqam ak wéetal yonentam bi alayhi salatu ci topp ko ak roy ko cheikh al islam ibn taymi rahimahullah nee na diine yépp mën nga ko résumer ci ñaar yooyu wéetal yàlla jox ko lépp luy àqam ak wéetal yonente bi alayhi salatu salaam ci roy ko jële sa diine ci moom bu ko defee doo jaamoo yàlla loo xam ne ay làmbatul ak ay tañax-tañaxi la li ngay jaamu yàlla moo ko moom yàlla moo tax nga koy def waaye ni nga koy defee yonente bi alayhi salatu moo la koy jàngal te yonente bi alayhi salatu salaam diineem boo ko seetloo lépp ci woote ci wéetal yàlla la jëmoon te moom itam lépp lu mu daan def ci kaw tawxiid ak wéetal yàlla la ko tabax ba tax na nit ki bu fekkente ni pas-pasam sellul du mën a roy du mën a topp yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa waxoon ne yàlla dane ko neel nit ñi lii mooy sama yoon damay woote di jëmale ci yàlla man ak képp ku ma topp mu am ñaari tekkin benn tekkin bi nga xam ne moom la ñuy sukkandikoo ci aaya bi mooy ne qul haadihi sabili ana wa man ittabaani waxal ne lii mooy sama yoon man ak képp ku ma topp ci njeexital bi mu ne wa ma ana min al mushrikin bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy bokkaale kon yoonu yonent bi alayhi salaam sori na lépp lu jëm ci bokkaale lépp lu xeetoo ci bokkaal daf koo sori kon ku soobu ci yoon woowu bokk ci ñi ko topp da ngaa war a sori lépp loo xam ne bokkaale la salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu bokkaat ci yàqute yooyu nga xam ne pas-pas bu yàqu dina ko jural nit ki néew dooleeg xol néew dooleeg xol ak ñàkka sukkandikoom ak ñàkk wóolu borom bi subhaanahu wa taala xol boo xam ne doyloowul yàlla ndax néew doole gu ci nekk ndax bu pas-pas bi baaxul day feebar xol bi te bu ko feebaree rek xol bi néew doole néew doole gi mi ngi feeñ ci ñàkk sukkandiku xol bi ci yàlla subhaanahu wa taala li koy waral mooy xol bu fekkee wétal yàlla newwu ci bu boobaa màggal yàlla gu tax xol ba wóolu yàlla dootul nekk ci xol bi xol boobu lu ko doye dal lu yëngal borom dafay yomb boroom xol boobu dem toppi ji ay njabarkat wala yaakaar ne njabarkat yi ñooy rek la ay problème am daf koy yomb xol boobu boroom mooy nekk ci rajo yi di woote pour ñu gisaaneel ko xol boobu boroom mooy def képp ku jug di woote rek di woote ay baax ak ay mbir yu mën ak lu mu def nga dem wuy ji ko ndax xol bi dafa amul kàttan dafa amul doole faiblesse boobu nekk ci xol bi moom la wootekat yooyu nga xam ni ay allié lañ ñuy lëkkaloog ay seytaane lañ ngir di dévier nit ñi di leen tegg ci yoonu yàlla wootekat yooyu fiir boroom xol boobu jàpp ko dafay yomb ci ñoom moo tax kon ngir dox ci diggante nit ñi ak ñu dem wuyu ji wootekat yooyu te li lay jaaxal mooy ni leen nit ñi di wuyoo léegi code de popularité bi ñu am ay junni junni nit ngay gis seeni rassemblement yoo xamante ni doo fa gis leen ni diine ay caaxaan la gën a nuru boo ko seetaanee ci tele bi gis ku di ko dégg ci rajo yi sa xol dafay jeex li nga li ngay posé wu comme question des fois mooy nit ñi lan la leen kii def ba tax ñu dem di toog ci jotaay yu mel ni wala ñu fay dem di ko teewee ci te lépp ci turu diine lañ koy yëkkatee li yóbbu loolu mooy vide bi nekk ci xol yi pas-pas bi wérul ci xol yi vide boobu moom la wootekat yooyu di exploité moo tax njabar gi léegi del si wat tas bu baax te li ci gën a dangereux ci phénomène bu bees bi mooy léegi ay ndaw ngay gis ñu nekk ay njabarkat professionnel ñu leen di wane ci télé bi ñu sol ay basin toog tentation yi ci nekk yu bari la ndax ñoom la ñu bari di gën a déglu léegi ndax bu njëkkoon njabarkat da gis am mag moo xam ne day dëkk ci koñ bi luye ak yooyu déedéet léegi njabarkat bi oto bi muy dawal amuloo ko yére yi muy sol mënoo koo sol mu toog nekk ci rajo bi di wax ak télé bi di wax te ñenn ci ñoom dañuy jàng arab génne ci daara yi di la jàngale ay aaya ki xadis naan la li may def du njabar gars yi dañuy wax rek li may def araamul di ko layal di sukkandiku ci alxuraan ak sunna ngir daganal seen njabar gi ñuy def bu ko defee nit ñi di daw di dem ci ñoom ñaareel bi mooy léegi jeunes yu bari raccourci lañ ko def ndax nekk njabarkat li métier la boo xam dafa gaaw ci may la xaalis te doo sonn ndax métier la njuuj métier njuuj njaaj la ak tappale ak ñeme yàlla ak dëgër fit bu gaaw ci may la alal bu demee ba léegi nit ñi pas-pas ak diine ju wér ju dox seen digganteeg yenn ñaawteef yi nekkatul ci ñoom népp nu ñu amee baax na bu ñu gisee bunt boobu muy bunt bu gaaw ci maye xaalis ñu bari ciy dugg ba tax na ñu bari si ñuy jàng léeg-léeg jàngoon arab daan jàng alquran gisuloo lum la indil ci wàllu alal ak yooyu nga ni yoon bi gën a gaaw mooy ma bàyyi fi sama xam-xam bi ma jàngoon ak alquran bi te dugg ci li ñu tuddee lasraar bu ko defee tàmbali def yenn xeetu njabar yi balaa muy yàgg alal ji commencé ñëw lu bari lay yàq ci suñu société yi lu baree bare bari ndax njabar li yàlla waxoon mooy wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum day lore te amul njariñ kon vide boobu mooy indi loolu wootekat yee di wootewu ci turu diine ak ñii di tasaare njabar ci société yi ci ñi gën a yàq suñu société bi bokk nañ ci lan moo tax nit ñi di leen wuyu ci façon bu ñu leen di wuyoo mu am doole lool mooy pas-pas yi baaxul ci nit ñi vide boobu la ñuy exploité allahul mustaan mu bokkat ci itam ba léegi ñàkk dal gooy seetlu ci nit ki ci mbiram di tañax tañaxee ko làmbat ndax bu nit ki amul pas-pas bu wér li muy gëm dafay bëri léeg-léeg day bëgg boole sax ñaari mbir yoo xam dañ nekk en contradiction bii naan defal li naan bàyyil bu teyee nga gis ko muy def lii ba yàgg mu bàyyi ko ba léegi mu nekk ci leneen ndax dafa bëri ay kilifa te boo bëri ay kilifa yi ngay déglu ci say mbir ndi ndigal yi di wàcc fii tere yi di jug di jaar fii lu ne di jaar fale da ngay commencé am ay jeexi jaax ak jaxasu waaye nit ki bu defee kilifaam di boromam subhaanahu wa taala mi ko sant ne ko na topp yonentam bi alayhi salaatu wasalaam mbiram dafay dal mbiram dafay leer tañax tañaxi googu kon loolu moo koy indi pas-pas bu muccul ayib coono bu bëri lu ne li liñ day sant lépp sax day dem ba dootoo ko mën a def ndax nit ñi seeni bëgg-bëgg ci la ñuy sukkandiku di la sant yàlla mi lay sant nag dafay sant selon yow sa mën-mën yàlla rek moo naan la laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha waaye bu dee nit ñi la moom seen bëgg-bëgg rek ci la sukkandiku di la mën nga wala mënuloo seen yoon newu ci mu bokkaat ci itam ba léegi ci yi muy jural nit ki topp ay bëgg-bëgg ak i bànneex waaw li dëppook sa bànneex ak say bëgg-bëgg rek ci loolu ngay sukkandiku di dem ci li ngay dem doo ko teg ci lu wér ndax lii am na ay argument yu wér yu jóge ci yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam ndax li dëppoo na ak raison lu raisonnable la wala déet loolu nit ki dootu ci dox bu pas-pas nit ki wérul ci lan lay jugé ci lan lay attee ci ay bëgg-bëggam lay atte te nit ki bu bàyyee njub di sukkandiku ci bëgg-bëggam ak bànneexam di atte ci sànkute la jëm wa man adallu mimman ittabaa hawaahu bi gayri hudan min allah loolu nag bu fekkee seetlu nga lu bari ci suñu euh, société bi ci ay problème yooyu euh, naqarlu yàqu jikko yi déviance boo xam ne dafa am ci nit ñi ni ñuy doxalee ci ñaawteef yi ngay gis ci pomeeg fecc meeg domaine musique beeg yu ci bari lu ci bari ci nit ñi fit biñ ci am ak def biñ koy def te yëngalu leen terewul ba léegi ñu jàppee seen bopp ay jullit yoo xamante ni kenn gënu leen dëgër lislaam li ci bëri mën nga ko delloo ci pas-pas yi yàqu seen relation ak l'islam moo baaxatul ñu bëri ci ñoom jàppuñ ne war nañ dem jàng seen diine jàng seen lislaam xam ko mu leer ñu tegu ci lu leer pour ñoom doy na leen rek ñu askanele seen bopp fenn fu foofu waa foofa jëm ñu jëm fa waaw di ko wax fu ñu toll ak sax di ko di ko wane ci biti ndax vide bi nekk ci xol yi moo waral diine ji léegi ñu koy exposé ci biti lan moo tax nit ki pour mu wane ne moom lii la gëm muy soxla di takk photo ci dënnam soxlawuloo woon di takk foto ci sa dënn pour boo rombee nit ñi ñu xam ne lii nga gëm parce que li nga gëm bu dëggoo ci yow nga fas ko ci sa xol il suffit que nit ki eh, janjoo ak yow tuuti xam ne yow lii nga gëm xam ne jullit nga noonu lañ bëgg nga wanee ko sa lislaam mooy ci sa njullite mais pas mu nekk ay symbole ak ay drapeau yoo xam da nga koy brandir ci mbedd mi pour di ko wan nit ñi maquillage boobu ak euh, façon boobu lislaam xamu ko ci yaram mais bu xol yi nit ki day soxla am lu mu ko compenser vide boobu mooy waral léegi lan lay def ay photo ay lii ay yu mel noonu ci yooyu lañ lañ ñi di dem ñu na leen ci yu mel noonu nit ñi seen relation ak diine wératul gëmuñu ne war nañ dem jàng seen diine njàngeen mu wér bu sukkandiku ci alxuraan ak sunna soxlawuñu loolu wàllu pratique bi tamit mi ngi noonu ñu ci bëri ci ñoom yaakaar nañ ne diw ak diw def nañ lu tax ñun soxlaatuñu di sonn ci lislaam ndax seen fay bu ñëwee ñun ñu texewaale léegi nit ku gëm loolu kooku pour nga jëfloo ko lislaam nga góorgóoru loo ko ci def lu baax bàyyi lu bon dina jafe lool ba tax na kon boo ko gisee mu am fitu def lu bon lan moo ko ko may fit boobu delloo ko ci pas-pas bu mu fas ci xolam boo xam ne moo ko may mu ñeme nekk ci marché bi di luubal ak njuuj njaaj bu guddee mu nekk ci boîte de nuit yi di caaxaan pas-pas bu bon bi mu yor moom moo ko yóbbu ci loolu moo tax kon lu bari ci ci ngay gis ci ay signe de déviance yooyu gis ci suñu société bi ci jikko nit ñi ci seen yàqute ak jikko yi lu ci bari ci ni ñu déggee diine perception bi ñu am ci seen diine loolu moo leen yóbbu ci yàqute yooyu noonu fala xawla wala quwata illa billah yàqute yu bari léegi gis nga wàllu musique bi ay ndaw la ñuy jël yoo xamante ni ay ay doxalin yu ñaaw la ñuy am di inciter ñu ndaw ñi ci ay jikko ak ay doxalin yoo xam ne yu ñaaw la mais jeunes yu bari di di jeexitalu ci loolu ci benn facilité bi parce que lu ci bëri ci waajur yi yaratuñu seen njaboot ci lislaam te loolu tamit ci yàqute pas-pas bi lay delluwaat ba léegi mooy yëg bi ñu ki yëg responsabilité am envers njabootam ci ne daf leen war a yar ci diine ndax yàlla moo ne woon mu fegal leen seen bopp safara yéen ak seeni nit seeni ñoñ ñi ngeen yilif seen njaboot moo am responsabilité bu rëy boo xam ne yàlla gàll na ko ci sa loos ci njaboot borom xam yi daan tekki aaya boobu di wax ne ni ngay fegalee sa njaboot safara mooy nga yar leen mooy nga jàngal leen yar boo xam ne lu bon bon nit ki fu mën a dem dina ko xamal lu jaadu ak lu jaaduwul dina ko xamal lan la war a def ak lan la war warta def bu gisee yenn ñaawtee fii jomb koo def dina ko protéger ci yenn ñaawtee fi ñuy gis léegi ci suñu société bi mais bu fekkee nit ki préparé wuñ ko yar ko yar boobu livré ko ak mbedd mi bàyyi ko ak boppam bàyyi ko ak télé yi ñuy gis loolu mooy comportement yi ñuy gis ñun ñëpp ci mbedd mi loolu moo koy indi ndax ñi ñu gis ñu koy def ci mbedd mi yëpp ci ay kër lañ jóge dañoo am ay waajur waaye yar boobu di yaru lislaam bu ñuy yittewoo léegi suñ société di ci yar suñuy doom amatul dañ ko sàggane moo tax alimaam ibnul qayyim di wax ne bëriwaan na koo xamante ni doomam bi nga xam ne moom la bëgg ba bëgg ko nga xam ne ab cër la sax ci xolam ak alkaandeem ak sànkoom ci àdduna moom mooy sabab bi ndax moom moo koy dimbali ak topp ci lu neex doomam ba pare di wax ne da koo bëgg fekk ne nee na bëgg ko de di wax ne da koy yërëm fekk na yërëmu ko mi ngi koy lor bu ko defee dem na ba moom sax dina loru ci noonu mu ñàkk yittewoo doomam ci jàngal ko ak xamal ko lu baax ndax dina dem ba njariñ lu mu waroon jële ci doomam jooju jariñu ko moom dootu ko am dina ko ñàkk ndax xale yi bu ñu màggee ci benn jikko bu ñaaw bi ki ci njëkka a loru mooy seeni waajur ci ay jafe-jafe yu mu leen di indil ak ay problème yu li naan ku bañ a jooyloo sa doom mu jooyloo la mu ne boo seetloo lu bari ci yàquteg xale yi ci bàyyi la jóge mooy ci waajur yi la jóge yàqute gu bari koy gis ci ci xale yi nee na responsabilité bi ci waajur yi la jóge donte li yàlla waxoon yonente bi alayhi salatu wasallam mooy innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha mënoo jubal ko la soob yàlla mooy jubbanti nekkul ne faw nit ki dafa baax njabootam ñëpp dañu war a baax mel ne moom ndax njub nekkul ci loxoom waaye bu defee liy waru garam def kémtalay kàttanam li ci des mu bàyyi koog yàlla ñàkk koo def foofu la problème bi nekk te loolu mooy li am ci suñu société yi kon boo jàngataatee li nga xam ne dañ koy dund ci ay problème ak ay yàqute te lépp nga mën koo delloo ci pas-pas yi yàqu yi kenn xamul nu mu toll li ñuy ñaan yàlla mooy yàlla subhaanahu wa taala wat ñu ci lislaam bu wér yàlla saxal ñu ci musal ñu ci lépp loo xamante ni ay bokkaale la ak li xeetoo ci ay feebar yi nga xamante ni dafay yàq diine ni yàlla nañ ci yàlla subhaanahu wa taala musal yàlla na yàlla setal suñu ci feebar yooyu delloo si waat jullit ñi ci bi nga xam ne mooy lislaam bu wér rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana la tuzig qulubana bacda id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahhab allahuma aslix lana diinana alladi huwa ismatu amrina wa aslix lana dunyaana allati fiha macaashuna wa aslix lana axiratana allati ilayha macaaduna allahuma jacal alxayaata ziyaadatan lana fi kulli xayr والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء allahuma aslix lana sha'nana kullahu wa aafina waafu anna bi mannika wa karimika ya dal jalali wal ikram subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin